الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ولا ينسي عمزية للإمام بصيري من لم تزل مسودا ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم في دمائر الكون نكو نبغي tuxtaaru ñuy tànn lakka ñeel laanu maatu yaay wala baaw ak bàyyi sallallahu alayhi wa sallam yow yonent bi njëkk ngay feeñ ci xam gi te mosoo dañ di xam nag yàlla mosut dañ di la tànnal ay bàyyi ki yaay <coughs> mosut jaar ci la jaay lay doon jaar mu di njaaloo ki caaxaan yooyu yooyu bàyyi yonent bi ak imaamam mosuñ see jaar sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam damaayirul kaw ni kaw nu gu nëbb bi woo moom alkawnu mooy nekk alladi gi nga xam ne zahara feeñ na qabla wujud yi njëkk ak feeñam sallallahu alayhi wa sallam wujud fii na mu dëgg-dëgg ndax yonent bi mosu dañ di xam njëkk ak feeñam la ci na iskaana ba mu nekkee sallallahu alayhi wa sallam yal ko yàlla doolu xewal te musal ko xëy di fàddu bi zalikal kaw ni ci boobu la nekk summiyee tuddee nañ ko mudmaran lu nëbbu yonent bi xëy bu la woon foofu ndax feeñagut ci wujud gi moo tax ñu tuddee ko mudmar di zaak looloo tax dégg nga taxtaaru dana tànn lakka ñeel la ay tustafi dana tànn wala boog tuxtaaru danañ tànn lakka ñeel la ay tustafa def nañ tànn lakka ñeel la nu yaay wala baaw ak bàyyi <coughs> su defee nag ba nga xamee ne ci melo doomu aadama la war a jaar kon foo mu jaar fi doomu aadama yi jaar ami maam ami baay ami yaay ni ko yàlla waxee wala jaal naaw malakan la jaal naaw rajulan malaaka sax buñ ko doon ci biir nit dañ koy def muy doomu aadama loolu waral maqaama yen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn xamu ndax ci la jugee waaye ndem dafa war a ci melo doomu adama kon foo mu jaar fi doomu aadama yi jaar melo seen melokaan <clears throat> waaye nag du mel ni doomu aadama yëpp foofu yàlla tànnal ko ay yaay ak ay baay waaw tànn ko moom ci boppam yadul dana tegtale alaada ci lii xawloo waxam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ko yàlla doole xoltu musal ko ne lam yasal dañu allahu yàlla yan xul nii di toxal <clears throat> min al aslaabi jugee ci ndigg yi a taahirat yu laab yi ilal arxaam yi jëm ci ruxumu jigéen yi maanaam biiru jigéen yi azakiya yu sell yi yonent bi sallallahu moo waxal boo xam ne yàlla dañu nag di ma toxalee ci ndigg yu laab yi di ma yóbbu ci biiru sell yi xaw ma kan waaye mi nga xam ne xam nga Cheikh Tidiane de laanu xam ne du dañ mukk di gisee bu Cheikh Tidiane wax rek waxal wér ndax moo gën a dëggu mm-hmm. ñi nga xam ne gisuñu yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nekk ñoo moom mm-hmm. dégg nga <coughs> ñooñu mën nañoo juum waaye kii la wax rek xaqul yaqin la sallallahu alayhi wa sallam yonentu moo waxal boppam ne yàlla mosu dañ dima ma toxalee ci ndigg yu laab yóbbu ci biir yu sell yi xaaloo wax nañ ñoom borom xam-xam yi lam taqa tabbu loo ñeel ko ummun yaay fi zina si njaaloo xatul mukk wala antaraha gaarut ko maa yantari la na gaar aljaahilatu way réeri minhu waaw ci jamonoom ila adama ba si jamono adama alayhi yàlla nekk moom asalaamu jàmm tatxiran ngir la woñeel yonent bi sallallahu alayhi wa am yaay ju njaaloo wala maam ju njaaloo képp koo xam ni rek waaw leer ak yonentu nar naa dugg biir doo jaar si njaalo ba mukk rek laa wax de mhm. la doon gaar way réer yi mhm. muy caaxaan yi nekkee woon mhm. maamu yonentu mustee nekk commencé ci abdullahi ah. waaw ba ci adama alayhi salaam ah. abdullahi sax ba nga xamee ne <clears throat> yàlla may na ko taar mu rafet lool ah. ndax leer yonentu sallallahu alayhi wasallam bu nekk ci biiram jigéen ñi lañ ko doon sàkku danañ ci ñëw waaye lam leen tont rek waa loolu ma xamal njëriñ gi dëggal lii muy amal xaraamu fan ma maatu duuna hoo def lu xaraam daal dee mu ko gënal xolof mu ko toll tey dana gis koo xam ne nee na dund na lislaam jàngale mi si na ci moom mën naa am sax borom xam la wala mën naam sax kilifa la waaye def lu xaraam moom léeg-léegi mu gënal ko dee bu dee ñëwee sax jaral na ko def lu xaraam ndax mu ci si dee googu waaye Abdullahi moom daf ne amal xaraamu fan ma lu xaraam dee mu ko gënal yonent bi mosul am maam ju caaxaan wala baay ju caaxaan sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxamaa li yàlla nekk moo salaamu jàmm booy su ma min xayri qurunin mu bokk ci maas yi gën min xay min xayri quruni bani aadama mu bokk ci maas yi gën ci doomu aadama yi maas fa xarnan topp maas mas gi gën ci maas yi doomu aadama yi ci liñ may ci dama yàlla yónni mm-hmm. moo tax jamono jim dund mooy jamono ji ci jamono yi rek laa wax de sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla dafa tànn maas maas maas ba ci maas gi gën mm-hmm. mu xebal ko ca lam yaftariq taqlikowut chambataani mm-hmm. ñaari kuréel illaa kunt lu mooy nekk naa fi xeyrihima ci ñi ca gën ñaari kuréel duñu wutee mukk lu mooy man bu feeñ ci kuréel gi gën laay feeñ moo tax banu hashim gi mu feeñ moo gën ci Quraysh ndax banu hashim giir la ci biir Quraysh kon ñoo gën ci mboolem kuréelu Quraysh yi rek laa wax de yonent fu mu feeñ rek foofoo gën moo tax maas gi mu feeñ mooy maas gi gën sallallahu ma xaal topp mu wax moom bu seeru radiyallahu anhu bu ne maa madad wayit fatratun benn jamono min a rasuli ci yonent yi illa bashara lu mooy na الانبياء يونتي بك السبدك قومها او نتم <clears throat> صلى الله عليه وسلم مني بن جامونو مسول وي لوموي يونتو جامونو بوبو بغل لاو نتم نلن يننتي دنام يننتو وي نيو صلى الله عليه وسلم تمي محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> جامونو جو وي رك يننتو جمنو جوجو دنا بيغلي او خيتا مينون تيالا محمد صلى الله عليه وسلم أنا او أنا واحد موي ما مداويت زمن جمن في نيك نتي الفترة اب دير فترة موي دير بو خامني يالا يونيو تي كين من الرسول تي يونتي دنگا واو الا ظهر لماي فين الخبر خبار من الانبياء جيجي يونتي alayhim yàlla nekk ci ñoom asalaam jàmm bi nu wóoti ci yonentu Muhammad sallallahu wa sallam wa sharaf yi ak teraangam xoolu yi ak kawem sallallahu alayhi wa sallam jamono joo mën a <clears throat> rek ju xamul yonentu nit ñi dañ waxtaanee ne yonentu bi passé woon ma ngi ñuy bégalee ab yonentu bu war a ñëw muy Muhammad sallallahu wa sallam kon yonentu bu ñëw rek yón bégale na ko waxat xiila nettal nañ ne inna suleymaana naka suleymaana la yéen nekk moom asalaatu xéwal wasalaam ak mucc mara romb na bi ardil madina suuf madina bi juyushin ànd ak soldaaram yi <coughs> waaye suuf soosu isdaaka jamono boobu baraaxun ndend la ndend mooy suuf kese la laa binaa di rek tabax bi di ci nekk yonent yàlla suleymaan dafa romb madina ak i soldaaram xam nga moom buur la woon bu mu woon àdduna lépp jamono boobu madina ndend la amul tabax amul dara falamma nazalaha ba mu ko wàccee ali yàlla nekk si moom asalaatu mucc xaala ci la ci Medina rek ci la wax ak nit ñi ko wër ba mu wax ñi ko war ne leen xaasihi si daaru hijratin mooy kër ak gàddaay li na biin ñeel fi axiri zamaani ci mujj ak jamono Souleymane ne leen suuf si yonantu bi ñëw jamono ci lay gàddaay si muy Medinatu xaaloo ñu ne ko kam bay na naa ñaata moo nekk suñu diggante boobu benn xuruj yi ak diggante génn ak tu boobu yaa nabi allah yow yonentu yàlla bi ne ko suñu digganteeg moom ñaata at moo ci dox xaala mu ne miqdaaru alfi amin eh, li tolloog waaw junne yar rek laa wax de <clears throat> moo dox seen diggante ñoom suma ma xaala topp mu wax moom Suleymaan lawum ñeen leen Suleymaan na leen fal yuballir na jottali ashaahidu aji fekkee minkum ci yéen alxaayib aji faddu ki teew na ko jottali ku teewut wan leen na leen dana am yonent wu ñëw ci mujj ak jamono medina lay gàddaaye <clears throat> loolu Suleymaan wax na ko su nekkutoon nag fooram su nekkutoon ak fooram moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yi duñ duñ ko bégle waaye loolu it day dëggal gëm gi ko yonent yi gëm waaw ndam fekkee wuñ jamonoom ñu gëm ko rek woon ñëpp ne leen yonantu la waaw ñoom ñoom dégage seen responsabilité fay noo naka moom yonent bi sayyidul anbiyaa yi mooy sangu yonent yi wa xaatimu rusul yi moom mottali yonent yi sallallahu alayhi wa sallam wa kaza nak ni al axbaar xibaar yi an yu ci moom bi kasiirin ci lu bëri min nabi na ci yonent yi alayhim yàlla nekk si moom asalaatu xeer wasalaam ak mucc maanaam xibaar yu bëri jógee nañ ci yonent yi waaw di bégalee seeni nit yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waqaala wax na Shayaaw yonentu la woon ci ci banu Israaïl ali yàlla nekk moom asalaatu xéwal wa salaam ak mucc li bani Israaïl ñeel banu Israaïl Shayaaw wax na waa banu Israaïl ne leen qaala lahum wax na leen ne leen inna allazi nag ki nga xam ne tusammuunahu danañ ko danañ ko tuddee ci jamonoom daal lan aji réer kooku saaxibu nubuwati mooy sangam mooy borom nubuwatu saa yaaw moom da koo jox maqaam bi lépp sax mu far nekk nu wëtu gii koo koy borom ñun dañu see seed rek waaye ñun moomuñ ko sallallahu alayhi wa te yéen bu ngeen fekkee moom jamono waaw da ngeen koy tuddee daal lu ko réer waaye réeru taftaroona da ngeen fent c'est-à-dire que loolu ala kasrati fujurikum ngir seen bëri kàccoor seen kàccoor yu bari moo tax ngeen fent tuddee ko ku réer waaye xam ngeen ne kooku réerul koo koy borom nu mu wëtu waxuma yonantu la mooy borom nu mu ga <coughs> sallallahu alayhi wa sallam ila gayri dalik jëm ci lu dul loolu min axbaari anbiya yi ci xibaar yonent yi yàlla yi mel ne ci ñoom asalaatu xéwaloo salaam ak mucc <coughs> maanaam ñu bëri waaw wax nañ mbiram Isa moom béglem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran na ko wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismu ahmad maa ngi leen di béglee ab yonent gu ñëw sama gannaaw mu ngi tudd ahmad yahudi waaw xam giñ xam ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee wuñ ko lu may rek waaw ci ci yàlla Moussa waaw yàlla wax nga ne ñoom yaarifuna kama yaarifuna abnaahum xam nañ yonent bi comme ni ñu xamee seen i doom waaw vraiment jaaw maarafu kafaru bi lañ xam ba mu leen dikkalee ñu weddi ko rek laa wax de kon ñoom yahud yi xam nañ ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam goo xam ne amul benn werante jëlee ko seen yonent rek waaye loolu lépp teewul rek waaw nëbbu nañ weddi ko. kon mboolem yonent yi ñu ngi doon béggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wa qawloo wax gi mu wax ne daal la dangeen ko tuddee ku réer yaani lu mu ci nam lu mu ci namm ala zamaan yi ñooñ jamonoom waxtu yaag waxtoom sallallahu alayhi wa sallam yu sammoonoo ko tuddee bi hada ci tur wi yow di nga xam ne dañoo fekkee yonent bi jamono ñoom ñoo koy tuddee ku waa ndax fenti mën a sos ak xañaan waaye xam nañ dëgg-dëgg yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ma zahara ba mu feeñee sallallahu alayhi wa sallam bil madina ci madina wa xaafal mu ragal al axbaaru fóode yi ala amatil yahudi ci mboolam yahudi yonent bi ba mu feeñee madina borom xam-xam yi ragal waaw ñàkk yahudi ñàkk seeni taalibe maanaam añe taboo ñu ragal ñu topp yonent bi katabu ci lañ bind sifatoo melaw melaw fii kutubin ci téere mu jëradatin yu rafle ani tawraat wala tawraat ba nga xamee ne yonent bi feeñ na Medina yahudi xool ko mu leen ne leen kii la doon yàlla di wax kii ay borom nu wóotu kii ay sang yonent yi kii ay borom maqaame yi mooy borom may yi mooy séddale lépp lu nit am sallallahu alayhi wa sallam ah borom xam-xame yahudi nag xam nañ lay dëgg waaye nag mboolom nit ñi moo nga xam ne jànguñ dara ñoom xamuñ li xew ah ñu ragal ne mbooloo mi buñ demee ba xam li xew danañ topp. yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag ñu bind melo yoonu bi ci beneen téere bu bokkut ak tawraat bind ko moom kese soppi melo ya wax ci lu bon ba nga xam ne boo ko xoolee rek danga naan kii nekkul mooy yonent bi yàlla yónni woon <coughs> fekk mel yonent bi lañ changé ba léegi noonu la yahudi mel seen kàngaam yeeg borom xam-xam yi kilifa yi xam nañ lay dëgg waaye dañuy lëndëmalal nit ñi rek ngir bu nit topp ngir soxor loolu diri na seen baanam ci yenn kilifa yi nga xam ne dëgg la gaa yi jullit lañ ay boroomi xam-xam lañ waaye suñ xamee lay dëgg seeni seeni nawle dañ koy nëbbu ndax bañ rek ñàkk seeni taalibi rek laa wax de <coughs> kat boobu bind nañ sifatoo mela yonent bi ne yaani mas na mu ñu ne azraqul aynayni ku jël ñaari bët la jël bët mooy bët yi bu euh, dëpp dëppu la weex li fare ci kanam la ñuul li fare ci gannaaw ñu ne yenentu boobu dafay bët yi day jël xam nga ne waxuñ dëgg lool kay seeni nit buñ ko déggee rek war xam ne yàlla du yónni yonentu nag di ko def di ko def borom bët yi jël mm-hmm. <coughs> waaye loolu lépp xam nañ ne yonentu dafa rafet melawu rafet wu ñu wax rek mu feeñ ci moom mm-hmm. moo tax melawu ñaar lañ mën a wax ñu ne bët yi dafay jël taw yi la ñu boobu dafay njool yonent nag njoolutoon gàttoon dafa digg doomu woon waaye kum taxaw ak sud la rek laa wax de sallallahu alayhi wa sallam te kat dafa diggu doomu woon rek ñu ne yonent boobu dafay njool wa badaloo ñu changé sifaati woo yi ay meloom sallallahu alayhi wa sallam al maktubat yañ fi tawraat ci tawraat melo yonent bañ bind ci tawraat yëpp ñu changé ko wax melo yu ñaaw <coughs> su ma axrajuha topp ñu gën melo yooyu ila amati ci mbooloom nit ñi waaw moom la alquran di yeddee ne li ma talbisuuna alxaqa bil baatili wa taktumu alxaqa wa antum taalamuuna lu tax ngeen di jaxasee alxaqa melo yonent bi di dëgg bil baatili ci nar yi nga xam ne yéen ko fent wa taktumu ngeen di nëbb alxaqa melo yonent bi wa antum ti yéen taalamuuna xam ngeen ne xel waaw melul ni ngeen bind ni yàlla wax la mel te moo nekk nii seen kanam waaye loolu lépp def nañ ko rek ngir poñetam àddina waqaala mu wax la hum ñeel leen ñu wax la hum ñeel nit ñi ne leen haadihi melo yii sifatu mooy melam yonent bi fi tawraat ci tawraat fa sakkana mu daal di dal alaamatu mbooloom nit ñi mbooloom yahuud yi xamoon nañ ne ab yonent su dana ñëw waaye nag meloom xamuñ ko ndax ñoom jànguñ bu ko defee borom xam-xam yi leen waroon gindi ñoo leen réeral changé melo ya ngir xañaan bañ bañ ñooñu topp leen waaye ñoom mënoon nañoo ànd ak ñooñu rek daal di topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du def lu may yokk leen mbooloo lislaam lu la fekkee bàyyi la ko sallallahu alayhi wa bu la fekkee woon mbooloo ak ak daraja nga ba sa mbooloo mook daraja ji topp ko da nga mbooloo mu raw nga xamoon ak daraja ju raw ja nga xamoon waaye yahuud yi ñàkk sens moo tax ñoom dégguñ loolu bu ko defee rek ñu bëgg a dàq nit ñi ci yonent bi far dàq nit ñi seen bopp fasa kanam mu dal la amatu mbooloom yahood ya wa tabaawum ñu topp leen ñu topp yahood ñu topp seen sang wa kafaroo ñu weddi falaqee mu dajeeg baadu axbaari yahood yi kenn ci foode yahood yi sallallahu wa sallam wa nekkoon na shaaban waa di ndaw kenn ci borom xam-xam yi yahood yi dafa dajeeg muhammad sallallahu alayhi wa kaana te nekkoon na moom borom xam-xam boobu akbaru axbaarihim di fóore bi gën a màgg seen fóore moo poon xam ci ñoom yonent bi dajeeg fóore boobu laqiyoo daje naa moom sabaan ci suba kaana nekkoon na xaarijan daa ji génnaaleel madina ci madina yonent bi moom fa qaala mu ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko yaa fulaan yow diw almaktubu kañ bind fi tawraat ci tawraat alladi ki nga xam ne min sifati bokk na ci meloom kaza nii wa kaza ak nii wax mel yàlla bind si tawraat yëpp wa zakara mu tudd sallallahu alayhi wa sallam awsaafu ay meloom fi tawraat ci tawraat nekk kooku nga xam ne yàlla nga koy jàngale si tawraat nii la mel nii la mel nii la mel ba mu jeex tasamuna ma da ngeen xootee an ne man lastu nekk mu bii di waa diw ndax da ngeen wax ne man du ma yonantu yàlla bind si tawraat فنظر مدلق اليهود يهود بيمين تشندي جور وشمالنا كي تشاموي فلم يرى غيسود احدا كن يهود بي غير سندي جور غيسود كن غير تشاموي غيسود كن ثم قال توب مولو نيل يا محمد يا محمد كل احبار يهودي مولم فودي يهودي بوم خم خم يهودي ياب تعلم قم انك نيو المكتوب يا كن بن في التوراة في التوراة بصفتك السملو alaama anta comme nii nga xamee ne yow ali yaa ngi ci melo woowu mboolem foo di yahud yi borom xam-xam yahud yi xam nañ ne yow yàlla bind sawraat ni ko yàlla bindee noon nga mel min xëyri shakkin ci lu dul benn sikkan dawum fa ñoom fii daalika ci loolu borom xam-xam yahud yëpp amuñ sikk ne yow yàlla bind sawraat way na maa xalaba na ko not na alayhim ci ñoom alax sa du añaan añaan ren jàpp rek moo tax mënuñ laa nangul waaw waaye añaan googu minum tukkee na ci yow lii rek laa wax mooy seen jikkoo ba léegi añaan nga leen jàpp waaye xam nañu lislaam mooy li mooy dëgg alayhim yàlla nekk ci fa seen kaw ñoom yahud yëpp laanatulaay rëbbam yàlla falam maa jaawam ba leen dikkalee ñoom yahud yi maa rafoo lañ xam kafaroo wedd nañ bii ci moom fa laanatulaay rëbbam yàlla al kaafirin yàlla nekk ci yooyu wedd yooyu <coughs> yahud yaa ngoogu foode boobu mu bëgg yonentu laajee ma ndax du may ki yàlla bindoon si tawraat daf na ko yow la waaye yow di añaan na leen jàpp rek waaye ñun ñëpp xam nañ ne yow la sallallahu alayhi wa sallam kon yonent ci yëpp daan nañ ko béglee ñëpp xamoon nañ abi suwaaram réerul kenn te <clears throat> tabaaha dana puuga yow bi ka ci yow yonent yàlla muhammad jamu la da koo def ay jamono mm-hmm. ndax lan ndax jamono yonantu mu mm-hmm. ngi commencé ba mu juddoo ba ni muy génne àdduna mm-hmm. wala sax ba ni saxaaba yi jeexee waaw waaye nag jamono ji ci gën a for mooy jëm dund ci kaw suuf nga xam ne nooyeem mu ngi génn ci jaww ji jëmba ma ngi ci euh, àdduna waaw ba mu juddoo ba ni mu génne àdduna loolooy jamonoom xam nga fan yi dafa liimu moo tax mu def ko jamono yi waaye benn jamono la ci namu yow sa jamono mm-hmm. yow yaa tax muy poogare wu ci yeneen jamono yi naan leen duma seen morom mm-hmm. man maay jamono ji nga xam ne mm-hmm. ci la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon maa leen gën wax na dëgg jamono bi yonentu gën ci jamono yi moo tax mu ngi poogare wu ci yonentu boobu ci kaw mboolem jamono yi jamono ji nag ay fan yu bari la moo tax mu def ko xonsuuru jamono yi wa tas moo dana yëkkati ko bi ka ci yow yonent bi aliyaa waji kawe ba nekk na ci ginnaawam aliyaa waji kawe sallallahu alayhi wa sallam borom maqaama yu kawe yëpp ak ñeleen kawe maqaama ñoom ñëpp ci yow lañ yëkkati ko tëbb gi nga xam ne tëbb nga ko nit ñu baax ñi moo tax ñu kawe moo tax ñu am daraja ci yàlla waaye képp koo xam ne tëbbam yonentu ñëwul ci moom du nekk tus rek laa wax de sallallahu alayhi moo tax nag doomu aadama fu mu gisee ku màgg na ko màggal ndax xam ne kooku feeñ waaye la ci feeñ waaye bu yonantu tànnee aw nit ba tëbb ko lam ko tëbbu def ci moom may yem def ci moom mu nekk nit ku màgg bul ko nangul ko rek cër yooyu nga xam ne nii waaw du daral muy feeñ waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko bañee rek yonentu nga bañ ku baax du bañ ku màgg borom xam-xam du nekk borom xam-xam mukk lu mooy mu nangul ña ko faree kaw te bañ a xeeb Mm-hmm. ni ko faree suuf te xormaal mboolem doomu aadama yi <coughs> ndem nanguloo ña la faree kaw rek yow nanguloo yonent bi mm-hmm. ndax boo bëggee yonent foo gis mayam bëgg ko mm-hmm. boo xeebee ña la faree suuf santoo yàlla boo xormaalu doomu aadama yi xamoo yàlla xaw loo xam te te ba dana puugare wu bi ka ci yow alon suuru jamono yi يعني مثل متتبع هذا نبوغرو العنصر سجمون بظهور كسف فين جنك فين نعم. والمراد لنا مبيعات موم العنصر تي اي التي ما بيغا قمنا ظهر فين فيات موم صلى الله عليه وسلم نعم. جمون جم فين لنك نمو يباي دي فوغيوك موم جمون جوجو غير حال رول جمون جوجو من الأنصار تي جموني جمون جيون تفين dafay pogore waat awanteeg yeneen jamono yi naan leen man ci man la yonuntu feeñ والمباهات فوقره وهي ممتاز وهي مق مقل وتفاخر فوق فوقره فوق على النذير سمرم نعم. وهي فوقره وش دق ممدرن كل شيء لا هذا نعم. وعصره وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يباهي لي فوقره وانتك الأنصار جمعنا هي التي قمنا لم يزار فينيوت فيها كي ممرك لا هذا نعم. جمعنا هي النبي فينيوت جمعنا هي النبي فوقره سيسن كوم واو الله عليه وسلم za dégg nga dégg nga waaw izhar sharaf yi ngir feeñal teranga gi nun ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi dalikal asri asri ci boobule jamono lam yazhar feeñul fiyaa ci moom zahara sharaf yi comme feeñ ak terangam sallallahu alayhi wa sallam fi dalika asri ci boobule jamono nu yonent bi feeñee ci jamono jooju mu juddu ba nim génnee àdduna jamono jooju dafay pogore wante yeneen jamono yëpp ne leen maa ndax teranga yonent ci man la feeñ waaw motax tax mu ne ngir feeñ ak teranga yonent bi ci jamono yoy xala waxna al ghafiqi fi marasi ci marsiyam marsiyam moy di tag ko génn dina li rasulullah ñe yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi lon marsiyal ne fa ma faqada al madun way passé yi muhammadin ku melni muhammad wala misluhu det ku melni mom hatta al qiyamati ma yawm al qiyamati yafqalu ñi diko ñak ñu weesu mosu ñoo ñàkk ku mel ni muhammad sallallahu alayhi wa waaye ñii ñëwit ba yowmal qiyaamati duñ mos a ñàkk mel ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wax na dëgg haza li maana tatabaha maana dana puugara bu bikk ci yow suuru jamono yi waasro jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo moom mi yowmi ci bis bu ilaa yowmi mawti ba bis bu mu génne àdduna wa dalika al asru huwa moom afdalul ansaar yi moo gën ci jamono yi rek laa moo de mooy jamono jëm juddoo ba ni muy génne àdduna moo gën ci jamono yi gannaawam saxaaba yi ndax saxaaba yi leer ak moo nekk ci ñoom fii nekk na ci jamono jooju xayru dunya xiiw àdduna wala axirata ak alaxira moo tax ku am iw ci àdduna rek ci jamono jooju nga ko jëlee waaye xiiw alaxira bu mën a xam ci jamono jooju la xamee waadadul usuri lii mu jamono yi maanaam daf ne jamono yaa ngi puugare wu te fekk benn jamono rek la ci namu moo tax mu ne maa ànd waa nag ne moment sunu benn jamono la limu googu bi taaddudi ayaam yi mu ngi ci limoog fan yi jamono yonentu fan yi daal limu moo tax mu def ko alonsuuru jamono yi fekk benn jamono rek la ci namu xawloo waxam jum naan wa tas moo dana yëkkatiku bi ka ci yow aliyaa waa ji kawe baada nekk na ci gannaawam ma waa ji kawe maanaa maanaa ba <coughs> muy maratibu ahlil xusuus martabaay ñooñu jagleel wal kamaal ak mat ma nabi na ànd ak yonent yi wal mursalina ak ñooñu yónni nabi na mooy ñu wax yu te yónni leen wal mursalina mooy ñu wax yu te yónni leen wal malaayikata ak malaayika yi ala iftiraaqi tabaqaatihim ànd ak teqalikoog seen yi waaw garaat wal aqtaaba qutb yi wa siddiqina ak way dëggal yi mooy wali yàlla yi ñi nga xam ne ne yàlla rek lañ jublu jubluñ lu dul yàlla ñooñu ñooñu ala ala tiraaqi tabaqaatim wuuteeg seen seen teqalikoog waaw garaat rek kullu tilkal maraati bi mboolem mboolem martaba yooyu yëpp zahara feeñ na lu waa kawem inda laay fa yàlla wati faa waa yëkkati koom bi sababi fay di si sababu bëbbam ali yàlla nekk si moom alayhim si sababu bëbbëg yonent bi maanaam tëbbëb yonent bi alayhim ci ñoom min hadratil qudusi jëlee ko ci péegu sell ba mboolem yonent yi ñi ci yàlla yónni ak ñoom yónni wut mboolem malaaka yi ba ci jibril waaw mboolem xutbu yi mboolem siddiqin yi mboolem arifin yi mboolem ñu baax yi ci barkeeb tëbbab yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam gim leen tëbb ci lañ yëkkatiku fa yàlla ci lañ kawe fa yàlla ndax yàlla faale wut ku dul yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam moo tax kum fonk rek dafa gis melo yonent ci yow ñoom ñëpp ci yonentu lañ kawe moo tax mu ne ko wa tasmu bi ka aliyaawu baada aliyaawu ñi kawee ak ña leen fare kaw ñoom ñëpp ci sa tëbb sa barke ci sa may ci sa sonnee ci lañ kawee rek laa wax de <clears throat> fay na bi daalikal fay di naka nekk na ci boobule tëbb wala boog fay na bi daalikal fay di naka ci boobule tëbb it tafaat ci la yëkkati ko tilkal maraati bi yooyu la martaba وعلى المكومة قادر واسين درجة عند الله فعلا تعالى كولا على حسب ما قدر الله وشكم لا يلا دوغل نكو في الغيب تفادو كنا كرك لا يلا دوغل ان تفادو نمم غام تتبو بي ننتبو بو نطول نم غام تلوطول نينا غام رك نم غي كوي فعلا <coughs> كلا بتبو تي ننتمو لغن كوي ما تبينك ورنيو هرمالان دوما دمائي nguur ak àdduna gi lañ gën fonk ci nguur ak yàlla gi nguur ak yàlla gi sax ay caaxaan lañ koy def jàpp ne kum neex rek defee ci loolu neex waaye xam ngeen ne nguur ak àdduna nuñ ko fonkee nga xam ne ni buñ jëlee loi kenn ñëwul koo tegg ndax dañuy xam ne lii du ay caaxaan loo foor foor bu buur dogalee dara ci réew rek ñëpp daw ci gannaawam <coughs> loolu moom feeñ na ci jamono ji nga xam ne nii la buur wax sëriñ ceeg ñëpp ñu ngi ci gannaaw buur ndax martaba bi ko yàlla may xel la nag ndax ku yàlla màggal la dañ ko war a màggal gouvernement ba boo fa demee ñoom seen biir xam ne yoo xam ne mbir la yoo xam ne xam nañ ne duñ sañ a teggi ku buur falit te ni ba mu sol ak liggéey ba mu liggéey kenn sañu ko wax ne ko bàyyi ko waaw police yi am dogal di di dóor ñi dafa fekk rek dañ leen cee may ndigal buñ leen ci maytoon ndigal wuñ ko police bi la ñëw fekk la sa kër ne la génnal jàpp la xeew la dem dugal ci kasaga ga dafa fekk daf ci am ndigal rek garaat bila kenn kenn sañu cee wax waaye pée bi yàlla ba moom kuy liggéey yàlla rek nit ñi lañ leen njëkk wax mooy xëyee moytul kat waaw sa yaram wi waaw sa jëmm ji sa nangam ji parce que PVL yi moom caaxaan lañ ko def <coughs> jàpp nañ ne falul kenn muy liggéey jàpp nañ ne PV waaw kenn warut ko maal moo tax ku nekk dañ naan ah xoolal sa intérêt bopp kat waaw bu la ñu nangam daf ñuy dal ku loo PVL bi daf laa faale yow ku loo PVL bi dafa faale waa jooju sax di ko liggéeyal PVL bi PVL la moom lu ko neex rek la bëgg nekkal ci lu ko neex lu lay dal nag sa yoon nekkut ci. yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen rey am na ñoo xam ne mbugal nañ leen ba ñu am na ñoo xam ne dugg nañ ci garab di làqatu waaw ñu ne Zakariya la ñu ne keneen la ñu si ko ba yaram wi daggati ko mu daal di dee lu ne dal na leen ci yoonu yàlla saxaaba yi lu ne dal na leen ci yoonu yàlla moo tax péeb yàlla bi faalewul mukk bu natt bi ñëwee ay mbokk yeeg nangam yeeg sopp yeeg dugg ci loolu sax wóorul <coughs> dugg ci loolu wóorul kuy liggéeyal yàlla ñaanal ko yàlla rek soo mënul nga nga waaye bul ko bàyyil mission bi ndax mission bi yàlla tuutiwut nañ xormal pay bi watas moo dana yëkkati ko bikka ci yow ali yaa waji kawe baax daa nekk na ci gannaaw ali yaa waji kawe <coughs> wahiya aji kawe jooju maratibu alil xusuusi may martabaay ñi yàlla jagleel mi ma zakartu bi ci ñi ma tudd mooy yonent yi صديقيني صديقيني مو نيام دغو فا يالا صلى الله عليه وسلم يعني لو مجنا من فايدة شي بوبو يونتي بي عليهم شي نيوم من حضره القدس شي بيب دو بيب سلوا شي لن كاوي رك لا واخ كو يالا فال نك فونك لين كو كين غا بور سانس كو يالا ديني اك نيان شي خولم غا خامني كوم خول رك مهر مال كو غرات بوبو نانغول كو sallallahu alayhi wa sallam su ma xaal topp moo radiyallahu ne wa feeñ naa lil wujudi jëm ci xam gi yépp min ka tukkee fa yow ku feeñ karimun ku tedd min karimin jugee ci ku tedd mu di abdullahi abaawo ay baay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koromaaw ñoom ñu tedd lañ kii moo xam yonentu ah ni mu waxee nag ne xam na lu tukkee ci yow feeñ ci mbindeef gi mm-hmm. dafay mel ni rek mm-hmm. keneen moo tukkee ci yonent bi feeñ ci gi fekk du noonu mm-hmm. arab dafay waxee nii lam ci na moom mooy jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam dafa bëgg wax ne yonent bi mooy ki feeñ ci mbindeef yëpp loolu waxinu arab la kon ñoom ni arab di waxee rek la ñuy waxee <coughs> yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi feeñ na ci am gi yëpp ci mbindeef gi yëpp du am gi nekk nii rek waaye mboolem koo xam ne nii rek jaamu yàlla la xam na ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla la ba mu des nit ak jinne yi nga xam ne nii dañoo réer ñooñu rek ñoo réere yonent bi waaye kudul nit ak jinne xam na ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yonu mooy yonentu yàlla bi xam na maqaamaam <clears throat> wala boo am na lam ci xam xormaal na ko nit ak jinne rek ko ko réeree loolu la bëgg a wax feeñ gi mu wax ne feeñ na hmm. nekkul ne dafa door a juddu yonentu mosut dañ di am waaye lim ci nammu waaw mooy feeñ gim feeñ jógee ci nëbbu gim nëbbut foon ñëw ci alam gi nga xam ni mën nañ koo teg bët sallallahu alayhi wa sallam ci ku tedd moom ku tedd la moom yonent bi lu tax mu tuddee ku tedd ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam may yàlla yi ak makaama yi ak daraja yi ak kama ak ak yëg-yëg yi yàlla def na ko ci moom keneen ko am rek ci moom nga jëlee moo tax moom mooy ki tedd jugee ci baay ju tëdd lu tax baayam tëdd baayam tëdd na parce que melo yonantu feeñ na ci moom moo tax mu doon wax naan amal xaraamu fa ma maatu doonoo ay baayam yëpp melo yonantu feeñ na ci ñoom moo tax ñoom mosuñoo jaar ci waa yu ñaaw yi jaahiliya doon jaar <coughs> xawloo waxam wa badaa feeñ na lil wujudi ñeel xam ngi maanaa wa maanaa bu mooy badaa feeñ na ay zaxara feeñ na wa maanaa wa maanaa bu mooy zaxara feeñ na min hijaabil xëy bi jugee ci kiiraay ak nëbbatum nëbbutu gim nëbbutu woon ci kiraay googu jugee na fa ilaa annahoo lu laa annahoo namut ne moom yonent bi zahara feeñ na min xijaabil adami jugee ci kiraay ak ñàkk bu bu bëggul laa wax ne yonent xamutoon léegi mujj na xam déedéet lim la bëgg wax mooy dafa nëbbutoon léegi mu feeñ mu mel ne rek ku nekkoon ci mu nekk gannaaw gu mu génn bokkut ak ku judd ku xamutoon moom mosul dañ di xam mu ne fay noonu naka moom yonent bi sallallahu alayhi kaana mosul dañ mawjudan di ko xam sallallahu alayhi wa sallam bi ansaarin ci ay jamono yu bëri mosu fee dañ di fi nekk ci jamono yu bëri waqad axbara xibaar na anu ci loolu rabbu boromam subhaanahu tudd na ma sellam wa taala kawana bi xawli ci waxam yàlla jàngal na la ci alquran ne la yonantu mosu dañ ci wax ji mu wax ne fa ana man awalul maa njëkk ci jaamukatu yàlla yi yonent bi moo ne moom moo njëkk a jaamu yàlla wax gi mu wax ne moo njëkk a jaamu yàlla dafay war ne moom moo njëkk a am hoo moom awalu mawjudin mooy ku njëkk xam zahara feeñ na min amaayi ci péeb jeex rabbaani yi ka jig borom lu tax ñu tuddee ko mooy péeb boo xam ne yëg-yëg amu dara amu tur amu fa mela amu fa waaw askan yëpp mm, faaru na ci kanam péeb boobu yonentu moo njëkk a feeñ ci péeb boobu hoo moom awalu mawjudin mooy ki njëkk xam tajalla feeñu na la ñeel ko rabbu waramam bi sifaati kamalaat ci meloy matam ki njëkk xam yàlla feeñu ko ci meloy matam mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom awalu mawjudin mooy ku njëkk am abdan di jaam li ñeel yàlla taala kawe moom moo njëkk a nekk jaamu yàlla moom yonent bi wa sajada te moo njëkk a sujootal la ñeel yàlla lam yasbiqu jiituut ko ila azal maydaani ci bile yoon dara aslan ci cosaan kon yonentu mooy ki njëkk xam bulo bu seer waxee feeñ na na mucc ne dafa xamutoon mu feeñ waaye daf laa bëgg wax na dafa nëbbutoon léegi mu feeñ rek de <coughs> dara jiituwut ko ci njëkk jaamu yàlla dara jiituwut ko ci njëkk sujootal yàlla dara jiituwut ko ci mu nekk jaam boo nga xam ne moom la yàlla njëkk def tëjëlee ci moom sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam lil wujudi ñeen mbindeef yi wa maanaam wujudi maanaam mbindeef yi woo suratul alami bi <coughs> dégg nga alam gi leen moo di wujud gi wa xawloo waxam wa ba daa feeñ na lil wujudi jëm ci alam gi wa buddu feeña moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lil wujudi jëm ci alam gi lam yakun nekkul ila fi surati hada al alam lu mooy ci melo bi la alam allazi bi nga xam ne na xam ñun fii ñu ngi ci loolu nag lam ci na moom mooy maanaam alam gi la yonent bi feeñu melo alam bi du nag ñun fu ñuy dund rek ñun doom adama yi déedéet mboole maalam gi yonentu feñ na fi yaqul dana wax al jaahil ku réer ne xayruna dul ñun min al awaalimi ci aalam yi laa ilma déedéet xam-xam la woo di ko ñeel bii si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku xamul daf naan ñun mi doom adama yi rek ñoo xam yonent bi waaye ku dul ñun xamul yonent bi Cheikh Tidiane nee na loolu réer la ba li fi nekk a lay dëgg fii ci wax jooju an na jamee awaalimi naka mboolem aalam yi نك مبولم من دفي تعرفوا قمنا ننتمي تمي صلى الله عليه وسلم معرفة قم تامة قمت سك يوم يرن تون كي ماي كان إلا من انتصف لما يكون ملو بالجهل كرير كرير رك مو خمر ينن كرير نك كان لا من كأنصات بني آدم كي ماي كتيا لي شدوم آدم أي والجنة <coughs> جنة لذو دوم آدم الجنة قمنا ينن تمي يدرون تكتل على ذلك تلولو قوله وخمس الله عليه وسلم في قدية الدبي تي واو مثلا بتما المعروفة بن قم بتمي نين قم ني دفا دي سامو بي نكو بلا مرا گم بتمي واخ يونت بي واخ بتما قال بتمي نكو كل شيء لب لو نيك يالا مو خمنا ني wala boog xaala yonentu ne kulli seen lépp lu nekk yaa mu dana xam an ni ne man rasulullah yonentu yàlla xeyra xusaati bani aadama lu mooy moykat yi ci doomu aadama yi wal jinne ak jinne yi yonentu foofu wax na fa ne fa lépp xam na ne man yonentu bi yàlla laa ba mu des doomu aadama yi nga xam ne dañuy mooy yàlla ak jinne yi naka noonu xalifa bi yàlla lépp dana ko xam ba mu des moykat yàlla yi rek de qul naa wax nañ fa jëmee naa waalimi mbooleem aalami تعرف قم يونتي بي صلى الله عليه وسلم غير من ذكر لنجر ننتو درك تموي موي علي من حيث أن الحق نجرنا يالا سبحانه وتعالى مسلم وتعالى كوينة كلفا توقنا من دي في كلها نم نب بصلاة نجولي عليه شرنت بي صلى الله عليه وسلم تمو جولي شرنت بي تقموكو جولي شرنت بي ندق دق يوم بلا جيغل شمام رك بو شمام رك جولي شمام صلى الله عليه وسلم ni nga xamee ne Cheikh Tidiane nee na mboolem xam gi ba ci jamaa daal yi way xeer yeeg yëpp am nañu ruuxu ndax yàlla daf leen sant ñu sabal ko te mënoo sabal te amoo moom ci ngay xamee yàlla ci ngay sabale yàlla naka noonu yàlla dafa sant lépp ñu julli ci yonent bi muy jeex ci moom te mënoo koo def te xamoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min yëpp xam nañ yonent bi mooy kat yàlla yi réer rek ñoo xamul yonent bi te mooy nit ak jinne ña ci mooy yàlla ñi ci yàlla tànn sax ñoom xam nañ loolu la yàlla di wax naan alam tara anna laa yasjudu lahu man fi samawati wal ardi wa shamsu wal qamar wa nujumu wal jibalu wa shajaru wa dawaabu wa kasirun min annaasi waaye wa kasirun xaqa alil azab nee na lépp sujootal na yàlla di nekk si asamaan ak suuf jant yeeg biddiw yeeg garab yeeg doj yeeg daaba yi ak ñu bari ci nit ñi moo ñu yàlla gindi waaye ñu bëri ci ñoom mbugal xëy na ci ñoom ndax am nañ kiiraay te saa yu kiiraay amee rek mbugal wàcc waaw in kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuuna yàlla nee na daf leen xiir borom ba suma innahum la saalul jahim comme que am nañ kiiraay rek mbugal saa yu kiiraay amee rek mbugal wàcc na <coughs> kon lépp xam na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam faazali mooy maanaa waxam jum وبدا فين الوجود ني الحمغي وليس نكون الوجود ام الذي غي خمن نحن نين في نين كي دون فقط دونغري كما يظنكم نون كاي نيوت الجاهل كرير بل لي في نيك كل من عرف كيف خما لا يلا عرفوا خم ينتبي صلى الله عليه وسلم كو خم يلا رك خم ينتبي <coughs> تمن ديف يب خم نيا الله كون خم نيا ينتبي لو موي نيري سي دوما دما يك moo mu ne illaa man intasaba lu mooy ka meloo bil jahli ci réer mais man zukkira ci ñoo xam ne tudd nañ ko xablu bu njëkk mooy doomu aadama yeeg jinne yi xawloo waxam min ko tukkee ci yow karimun ku tedd maanaa maanaa ba mooy ànd na ibarata naka wax ji tontu yi day joxe min nafsiha ci boppam an na zahira ne ko kukki feeñ lil wujudi jëm ci xam gi min zaati jugee ci yonent bi lil wujudi ñëw ci xam gi xeyruhu ku yonent bi la ni wax ji waxee ni mu waxee moom bu sayri dafay mel ni ki feeñ ñëw ci mbindee fi jugee ci yonent bi bokkut ak yonent bi waaye wala si nekkut kazalika comme noonu bal li fi nekk haadil ibaara bi la waxin bi la waxin saariyatun aji dawla indal arabi ci arab yi arab yi yëpp ñooy waxee nii innama yuriduna dañuy bëgg a sax sa jëmm ji naf soo waxoom ne ko badaa min ko fekk moom lañ ko bëgg wax ne ko yow feeñ nga rek de moom lañ bëgg wax wa qawla wax ji mu wax ne min ko tukkee yow karimun ku tedd ku tedd mooy kan woo moom aljaamu mooy ku dajale li sifaatil maxamidi ñeel melol sant yi kulli lépp almutanazihi ka aji set am sifaatil naqaay si waris melo wàññeeku yi ku tedd kooku mooy ki nga xam ne sant yëpp daje nañ ci moom meloo wàññeeku yëpp set na ci kookoy ku tedd haza kii huwa alladi mooy ki nga xam ne tusammi dana ko tuddee al arabu arab yi kariman ku tedd kon képp kuñ tuddee di ku tedd rek dañ laa xabal waaye moomoo teraanga googu teraanga dëgg-dëgg yoon tu ci la dajee foo moom yonent bi sallallahu alayhi wa aji dajale li astaatil mahamidi ñeel sant yi tàqaliko yi wal kamalaat ak mat yi kulliha lépp mboolem sant yi ak mat yi ci yonent la dajaloo munazawun kuñ setal la fii kamaali ci ak matam an jumeen naqaay si wàññeeku moo tax kuy xam yonent bi di ko xormaal suuf yi suuf yi ñoo la gën a xormaal yonent bi ñu xamul sax dañ naan ñi dañoo xóotal ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa seet moom yonent bi ci mbooleem wàññeeku yi allati yi nga xam ne laa yaxtamiluha du ko gàddu kamaaluhu ak matam wàññeeku koo xam ne xellut ci àq yonent bi rek du dëgg nekkut fa moom yadul dina tegtalaale yaa ci moom xawloo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa baalu aqwaamin ana lu jot aw nit ñi nga xam ne yatanazahuna dañuy jéem a set ani sey ci mbir mi nga xam ne afaalu maa ngi koy def ana lu jot gaa ñi nga xam ne gis nañu may def am mbir ñoom ñi xem mbir moom di ci jéem a set fa wallaay maa ngi gën ci yàlla inni naka man la alamoo maa leen gën a xam billaahi ci yàlla واخشاو ما لين غنا راغال لهو نيل يالا يونت نينا ما لين غنا خم يالا ما لين غنا راغال يالا كون لو تخ ني بيجي ما باي لي ماي ديف وين مو خمم بالله تعالى تعالى كوين أنا يونت بي من ايسو انو غير ن موم متحققون اجي دغولا بيجي مي كمالات الهيه تي مبولم مات يالا بي من كسفا تي ني خمنا و نيو كون موم يالا لهو نيل كو صلى الله عليه وسلم بولم مات يالا يالا ديف تجي لي رك تي يونت بي <coughs> يونتو بيغنلب mos na lépp moom rek ko mos lépp moo tax fu yàlla di yàlla rek yonent yi mu ngi fa di yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu keneen amul ko faada lii alkarim mooy ku tedd xawloo waxam jum ne min karimin jugee ci ku tedd yuridu danam bii ci moom abaabu baayam sallallahu alayhi wa sallam sayidina abdullahi mooy suñu sang abdullahi allazi gi nga xam ne moom moom aaxiru mawjudin mooy mindeef waaw mooy mindeef bi mujj xam in fasala nga xam ne jugee na moom yonent bi anu ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax Abdoulaye moom Seydina la koy wax moom du werante moom ay gi sawar la jëm jëm ko moom passé na foofu <clears throat> Abdoulaye mooy mbindeef mu mujj mi nga xam ne ci yonent bi jógee directe moom la namu ci min karimin aba way bàyyam koroma wu ñu tedd lañ kullum ñoom ñëpp koroma wu ñu tedd lañ zahara feeñ na fiim ci ñoom moom yonent bi sifaati ci ay melam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi اي ملم تي رفاني تي اي باي موتر باي مي في ان اريد الاسلام والسلامه مع توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته